di teewlu xibaaru Bambouk dal ak jàmm ci seen tënkum xabaaru euh, bés bi euh, niki démb altine fukki fan juróom-ñeent ci weer décembre lycée euh, bu Koungheul daal dinay dalloo cérémonie levée de couleur bi nga xam ne ñu ngi ko fi amal bu njëkk loolu nag mu ngi am ci teewaayu préfet adjoint préfet di Pape Abdoulaye Ba ak chef de service yu nekk fii ci Koungheul rawatina IF Mamadou Oumar Gueye police euh, sapeur ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci éducation moo xam professeurs yi ak élèves yi li waral loolu nag du dara lu du doxal euh, concept boobu nga xam ne dañ koo teg di ko wooyee un mois un lycée muy weer bu nekk ñu fexe dem ci benn lycée daal di fay def levée de couleur waaye tamit daal di weccante xalaat ci lu jëm ci wàllum civisme ak euh, citoyenneté loolu nag tax na ñi jàpp ne école bokk na ci bërëb bu njëkk boo xam ne ci lañu war a jàngalee xale yi waaye tamit ci lañ war a fexe ba xale yi nga xam ne ñooy yor réew mi ëllëg ñu daal di ngàlloo li nga xam ne mooy citoyenneté mooy bëgg sa réew waaye tamit civisme mooy fexe ba gox bi nga nekk tamit nga daal di koy toppatoo ba du am benn yàqu-yàqu loolu nag mu ngi amoon niki démb fële ca lycée El Hadj Ibrahima Ba bu uh, Koungheul ci teewaayu tamit ki nga xam ne mooy inspecteur d'académie bu Kaffrine di uh, Abdoulaye Wade Euh, gannaaw loolu ñu àdd ci euh, population bu Kédougou niki euh, dimanche bi ñu génn daal doon nañ wàcc si terrain bi daal di def doxu ñaxtu gannaaw ba nga xamee ne nguuru Sénégal am na yéene daal di tegal leen si seen gox bu foofu benn projet bu ñuy wax pôle Sénégal oriental loolu nag gannaaw ba nga xamee ne xam nañ ne fan yi néew dañuy am conseil des ministres délocalisé ci gox ba ñi nga xam ne ñoo fa dëkkee te nanguwuñ projet boobu daal di nañ wàcc daal di ñaawlu mbir moomu daal dinañ joxoon baaraamu tuuma tamit ki nga xam ne mooy Sidiki Kaba dëkk fële ca Tamba di wax ne moo nekk ci ginnaaw projet bi te ñoom jàpp nañ ne projet bi amul lu leen jëriñ waaye Tamba bi nga xam ne Sidiki Kaba fa la dëkk moom rek lay jëriñ moo tax ñuy sàkku ci moom mu daal di dellu euh, Tamba ñoom waa Kédougou gi ñu bàyyi leen ak ñi dëkkee gox ba ngir ñu mën koo defar gannaaw loolu tamit daal nañ ñaawlu bëgg-bëgg bi nga xam ne nguur Sénégal euh, am na yéene jël usine bi nga xam ne. mooy transformer fer bi daal di koy yóbbu Tamba jëlee ko Kédougou loolu tamit bokk na ci li nga xam ne euh, naqari na leen te yëkkati nañ ko daal di koy teg ci euh, bopp ki nga xam ne mooy nguuru Sénégal ñu des ci côté oriental bi ci paan ak fële ca Kolda mairie bi gannaaw ba nga xamee ne lëkkaloo nag euh, huissier daal di nay yóbbul ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché central ak centre commercial yu nekk foofu daal di leen dafa sommation ndax gis nañ ne dañ fa amee ay weer yu bëri yoo xam ne fayuñ ko. loolu nag gannaaw bañ déglu ki nga xam ne mooy huissier daal dina koy dëggal waaye tamit ki nga xam ne moo jiite commerçant yi nekk ci gox ba tamit daal dinay dëggal kàddu googu waaye di sàkku rek eh, ci nguur gi rawatina mairie bi nga xam ne ñoo eh, ŋànk gox ba ñu daal di waxtaan ak commerçant yi ngir ko ñu xool naka la ñuy def ba jàmm am waaye tamit eh, naka la ñuy def ba buñ génnee ci mbir mi kenn du si gaañu waaye ñoom ñaa ñëpp daal di si mën a jëlee njëriñ ñu des si wàllum euh, tàggat yaram ak euh, gaynde gi di euh, international sénégalais bi di Iliman Ndiaye di football fële ca Sheffield United gis nañ ne nag niki altine bi ñu génn ci match deuxième division anglaise daal nay defaat passe décisif bu tax clubam boobu di Sheffield United daal di dóor Wigan ñaari bal ci benn moom nag gannaaw juróom-ñeent bi yi nga xam ne daal dina koy dugal ak passe décisif bu xaymaa lépp.